Fica, fica, fica. jigéen soppal tëbul woon moo tax ba tey mënu maa takk jabar ndax ay bandoola la waa Jóoba waa Jóoba namu naa nag di tiitaroo Dakar non mais nee naa la jàmm la ñu woote gis nga Ama affaire bi jarul xeex jarul xuloo gis nga affaire bi yàgg yàgg yàgg yàgg bi dina ne Modou pare nga mu ne waaw mu ne Ama pare nga mu ne waaw barke sëñ Ibra Mbacke borom ñaamar fii la ñuy génne ci Ama Balde ba ilaa yow mi diini nga ne ko ne ko amoo doole bandi woo mënoo bëre. démb gis nga Ama Balde. man ma non sëñ Bamba dama koy seetaan mbër mu dul Ama Balde sax dama koy seetaan parce que li tax may seetaan mbër yi mooy chaque ins damay xalaat Modou dina am adversaire bi léegi nag man Modou adversaire bu mu ci am rek damay xam nu lay daane. te gis nga Ama Balde. non baal ma côté ko. Serigne Saliou Mbacke xam na ne xoolal. Ama Balde dafa lancé benn message bu am solo waa Pikine ne leen ngir yàlla képp ku ci sànni xeer man nga tooñ leen ma dugg ci digg géew bi jëflanteeg Modou góor yàlla pire la indi ndam la jox la. mën na laa sol nii balaa balaa ñu jàmm lañu woote ñu ku ñu xam bañ si woote moom la ba léegi mosuñu xeex mosuñu xuloo mosuñu yàq àllu jàmm xamuñu sax loolu yëfu ñàkk fayda yooyu nekkuñu si ñun dañu dem supporter suñu mbër sant lu rafet mu bëree daan ñibbi si. man jàmm laa bëgg jàmm rek digg géew ba moom bëgguma ci jàmm. digg géew ba te ñu ngi te ñu ngi ñaan ñu ñaan yàlla ñi nga xam ne moom rek moo fi nekk. Hmm. moo yor bi yàlla may ndam Modou Lo ci barke Alxuraan. Ah, loolu de sa sañ sañ open lañ mën a xaar ci moom. lépp. Hmm? asibir incha <laughs> ngi ziar bu baax delloo ziar jàmbaar. ah yaa ngi am jàmm ñu ngi sant Serigne Saliou bu baax a baax. nañ ci nekk rek baa ñu nekk ci liggéey bi rek. Hmm? bañ dajee fële incha allah. macha allah saa Touba. ndeysaan ko noonu. bilaay noonu chaque instant kay la. bilaay ko nii micro nga bàyyi fi sa micro xanaa yaa ngi direct Malick. ah. ñaari équipe ngeen indi. wax leen ñaari équipe Fadel dafa ñëw ànd ak kee booy bi lu mu tuddati Seydou Malick ñëw ànd ak kan yow jinax day bëri pax da ngeen liggéey liggéey bu am solo ci réew Dakar Buzz laay wallaay macha allah moo tax ñoom ñu ngi fii ci euh, kër Modou Lo Parcelles Assainies unité 10 Modou Lo war a def tey open press combat royal digganteem euh, ak xale bi di Ama Balde sëll bu mag bi borom ndel bi <laughs> mu nekk bis boo xamante ni macha allah ak làmb ñu koy xaar bari na. bari na parce que Modou dafa jëlee couronne roi des arènes bi biir Pikine ci kaw Eumeu Sène ba pare ne da booleel leen ñaari xale yi ngeen xam ni moom ngeen gën a am yaakaar ñooy ëllëgu làmb ma tegal leen kuron bi ñëw defal leen bagage Ama.

Thank you. booy booy booy lii du yoon booy booy lii du yoon booy lii lii mais sama gars yi lii baaxul de ma ne ko li ngeen bëgg a def nii gaynde ah may ma may ma non bàyyi ma la vaccin xanaa man jéem rek maa ngi allé yooyu wax daal vaccin quoi wóor na yàlla maa ngi allé parce que seen coow waa bi laa fi yor nga continué mais naka naka maanaam ak caméra yi def taw bi rek maa ngi woon ci man doo keneen. Ama Balde nag moom waajal na moodu su jugee Modou bu jugee ci Ama Balde ak lu mën a xew digganteem ak Boy ñaar dañ koy waajal en tout daal làmba ngi noonu. balık. Bawal. ci man doo laal keneen Ama Balde nag moom waajal na Modou su jugee Modou bu jugee ci Ama Balde ak lu mën a xew digganteem ak Boy Niang dañ koy waajal en tout cas daal làmba ngi noonu man. Barriere, boy. Hey, hey. Hey,